tay Sénégal président de la République bi ñu toogee ay diir jël ay mutuwaay bi mu conseil présidentiel bi samedi bi passé bi mu en urgence palais bi ba loolu itam ñun tamit ne secteur pour ko ñu ne nga société minière

aar ah, bépp doomu aadama ci Sénégal naka lañu mën na ñoom tamit ñu andi seen wàll ci loolu ndaxte gis ngeen ne président joxe na fi tey un milliard quatre cent mu di lu bari waaye néew na ndaxte ku gis li xew ci yeneen dëkk yi di nga xam ne ah bari na fi ñu toll ni ñu ñaan yàlla mu yem foofu te ñaanal ña nga xam ne itamit tey dal na leen yàlla yemale ko foofu fagaru moo gën faju si fagaru boobu nag moom lañ leen wooyee woon wooy leen pour mu xam ne ah suñ ko ñaanuñu ko yàlla ndax te diir bi weer la su fekkente ne law na ñoom lan lañu ñu pare pour jàppale ñu ko dañeen ko wax ci gouverneur yi nañ dinañ fa am ay CRD mais ñun ñi nga xam ne ñoo yore secteur di mines naka la ñu war a mën a andi sunu ndimbal ci président de la république bàyyi woon nañu ña nga xam ne ñoo waroon jóge bitim réew war a dugg si may nañ leen congé ba duñu ñëw ba pendant une quarantaine de jours ñeent fukki fan mais itamit si biir usine bi ña nga xam ne ñoo fa nekk ñu ngi seet seen biir naka la ñuy def ba ñi nga xam ne dañuy liggéey lu bari ndaxte au lieu ñu def ñetti kaar ñaari kaar la ñuy def donc doon liggéey ñeenti waxtu di nga def peut-être juróom-ñetti waxtu di ngi seet ak ñoom naka la ñuy def ba gunge travailleurs yooyu ñi nga xam ne itamit dañu waroon ñëw dakaar parce que ñoom dañuy rouler ñi dañuy toog liggéey trois semaines ñoo noppalu ko 2 semaines Dakar ñaan nañu seen agent yi pour ñu bañ a ñëw Dakar ñu nekk Dakar ba ñu dem nga xam ne contact bi tamit du bari ñoom daal jël nañu seen mëtuwaay ba contact yu bari dootul am mais terewul tamit seen activité bi dina continuer dina continuer impact bi xam nañ ne dina bari mais du ñoom rek ndaxte tey suñu xoolee suñu yaay yi nga xam ne ñu ngi jaay ci booru école yi ñu ngi jaay ci booru marché yi tey ñu tere leen ko mais xam naa ne président dina sensible ci loolu te dina seet xëy na naka lay def ba jàppale activité PME yi ak yi nga xam ne tey dañu nar nekk au